maa ngi sant bu baax ñëpp ñi fi teew di wax nag euh, centre bi dama ko ubbi pour euh, xale yi handicapé yi parce que boo seetee baax xale yi handicapé yi bëri nañu si kër yi man mi personnellement am naa si benn te defe naa loolu moo waral ma jël initiative bii désormais bëggatuma ñu jël benn xale handicapé di ko marginaliser wala di ko nëbb si biir kër yi mel ni comme si moom amul benn droit jullit dafay nangu ndogal ku nangu ndogal suñu borom teral la xale tamit moomin la xamul dara xale handicapé dafa am droit jàng dafa am droit réussir dafa am droit ci société bi dafa am droit liggéey am droit comme comme xale yëpp droit bi ñu am droit boobu la am indi handicap c'est pas une maladie handicap c'est dans la tête kon nañ jàppale suñu doom yi yàlla moo leen ko teg te yàlla mu leen ko teg mën nañu ko teg parce que dund gu sotteeku lu nekk xañ na si am na ñoo xam ne judduwaale wuñ ko dafa leen dab kon kenn ku nekk kenn ñaanu ko yàlla

ndax ma dam Mbacke moom mooy man man maay moom man ak rakkam bii di Ndeye Khady mii ñun ñaar la bokk yemale lu ma nekk suba ba ngoon mi ngi si bagage yi don yi ngeen fi gis yëpp moo ko fi indi Abdoulaye Ka taabul banc yi ngeen fi gis yëpp moo ko fi indi di remercier presse bi nekk Touba yëpp taxawaay bi ngeen am yëpp kontaan naa jaarale bi ngeen ko doon jaarale si média yi fayuma dara c'était gratuit kon yéen a ngi def social yéen tamit di gërëm tam El tamit kontaan naa maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm président tribunal ak sous préfet ak euh, commissaire ñoom ñëpp maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ak madame Fall secretaire commune ak ñoom bu Sankhé ñoom Khadijatu su ma liimee damay juum ñoom maam Cheikh Ka sëñ Sidi tamit maa ngi koy defal. mention spéciale ndax moom tamit sama papa la ah, papa yi waa maire bi yëpp lañ lu ñu am lu ñu jaaxal ci maire lu ñu dem ci laatkat ci moom la ñuy dem situation bu fu mënti am moom moo koy lijjanti te kenn lu ñu dégg maire ba nag ay taalibe ñoo fa nekk amuñu dara lu ñu naqari ñun grève ñun ñu Touba la ñuy liggéeyal liggéey lu ñu Abdou Lahad Ka initiative bi ma jël tamit dama ko dem ngir yàlla rek te tax xam ne ab murid laa dëkk si dëkk bi war a liggéeyal dëkk bi waaw sëñ Babacar Mbaye tamit maa ngi koy gërëm muy chef de maa ngi gërëm ñëpp xel dafay fattu su ma su ma limee damay juum njàng mi nag incha allah